waaw man la soxna maam Diarra Cissé Thiombi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag. ma kontaan rek tubaar tubaarkàlla macha allah tey damaa kontaan euh, kontaante moo xam boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax tey bu fekkee ne Cheikh Abdou Bali mooy sama sëriñ di sama leader président Macky Sall def ko tête de liste mu nekk fii ci département Mbacké commune Touba mu woote lu toll ni commune bi yëpp génnee monde rural bi génn commune Touba génn ñëpp génn tey fekk si ko fii ci kër gi muy joxe ay social mbaat dafa dellu ca ndaala ndax moom kër gi social rek moo fi nekk. ñun xam nga lan doon def moom tubaarkàlla macha allah doomi gaynde faat pa ji di sëtub Cheikh Moustapha lam doom def moom matal na ko ndax ba mu defee tournée di wane li président Macky Sall def ci dëkk bi ku ne xam ne doomi gaynde faat maa ko doon def te la mu wone réalisation yi lu ci ne rek teg na ko ci baaraamam def la mu war a def. ñun lañu war a def rek la ñu def man awma benn problème ak kenn xam nga kuy sama problème Cheikh Abdou Bali mais moom soñ Cheikh Mbacke defaat ma muy sama leader ma ànd ak moom te duma dellu ginnaaw duma ci poussé mu def lu rafet loo xamante ne ni tey def na ko ci département Mbacke ñëpp teg nañ ci seen bët. ñi nga xam ne ñoo jox ñoom lañ jox ndomba tànk ci dëkk bi te ñekk ci biir dëkk bi président Macky Sall fal leen nañu génne social yi jox ko nit ñi. nii Cheikh Abdou def nañ ko génne def ko nii bu ñu xaar lu dul élection am kenn ku ne yuqub gémmiñ bëgg ku la doyali kaar léegi jigéen ñi coalition nañu kenn dootu doyal kenn kaar nañ génne alal ji jox ko nit ñi dimbali nit ñi Cheikh Abdou moom li mu war a def def na ko doomi gaynde Fatma ji li mu war a def moom eggale na ko ma nga ne génne nay socialam mille personnes la génne jox ko département Mbacké commune bu Touba kenn ku ne la nga ca war a am am ko nag ministre conseil lañ ko jox joxuñu ko ministre boo xamante ni am na portefeuille ministre conseil lañ waaye ku xam ne lii mu génne fay tey jii propre mayam la génne kon kenn du Cheikh Abdou Bali waaye Baye Fall gi moom ba ñu yaakaar a Cheikh Moustapha lañ nekk Baye Fallu Cheikh ndax nun amul lu mu Moustapha dëkk Daaru Xuddoos fii di ba wetu bayti fa sëñ a toon junne yi fa lañ dëkk nun booba lañ nekk Baye Fall nun Baye Fall lañu tey Baye Fall lañu ëllëg nag bëgguñu lu Cheikh Moustapha kon bu dee sëtu Cheikh Moustapha dañuy ànd ak moom tay ba ëllëg dawunu ci dara Cheikh Abdou moom na anawaa rek ñu ànd ak moom dem dawunu dara nag ku ko tudd wala nga wax ko loo ko wut a wax wala ngay jooyal mbaxana wala ngay defi bañ a oor mel ne ku bokk ak mañan kase dara danga aw ak ñu sun gannaaw la ko moom dana ko dégg bu ko déggee dana xam ni moom man lan la Cheikh Abdou daal nanguutuñ ci département bi ku ko ne cooy wala nga ne ko gën ndaw li war man ko koy def ñoom ñi nekk ci dëkk bi nga xam ne di ndaw raa bi naka Saa Njaay fu ñu dugg fu amuñu métier amuñu dara defuñu ci dëkk bi dara di jooyali musóor ak fawi mbaxanaay di taggali musóor ak di sol seen bañu oor yooyu nañ ko jàllale ca biti Cheikh Abdou moom fii kenn dootu ko wax dara